département de Kër Massar bi dañoo sonn dañoo sonn mooy lan dañoo xeexal président Macky Sall fi ñu ko war a xeexalee waaye xeex boobu noonu président Macky Sall delloowuñu ko ndax lu tax tey dakaar dañoo perte comme Kër Massar te dakaar am nañu ay ministre am nañu ay DG Pikine perte comme Kër Massar am nañu ay ministre am nañu ay DG Rufisque perte comme Kër Massar am nañu ay ministre am nañu ay DG de même que Guédiawaye pourquoi un tel département bu bees boo xamante ni son excellence de président Macky Sall moo ko créé ak électorat bi muy compté nga xamante ni plus de 500000 électeurs mu ngi fi tëdd président Macky Sall bëgg a bàyyi les responsables du département de Kër Massar noonu loolu dañ koy bañ am na ay jeunes yoo xamante ni ñu ngi fi ay cadre lañu j'appelle son excellence le président Macky Sall mu nommé leen